di baalu ñëpp ax di wax yàlla na fi géej yàlla na fi géej te képp ku fi ñëw yàlla nañ la ko yéex a fay gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp papa nag moom sama xarit la woon sama goro la waaye sama xarit la ma koy ñaanal. fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge waaw. comprendre ma man dama dem ci Sonatel bi dama ànd ak Petit Dieye ak Cheikh Gueye sama rak dem ci Sonatel bi doon fay benn facture. bima ma bima bima dem ci bima agné paré man dama sama rak bi mako waxone mu togg mbaxalu yàpp parce que mo nekkone sama xel mu togg mu togg mbaxalu yàpp man dama bëgg mbaxalu yàpp dama ci daan lek ba sour agn bi taaje papa da naan yeewu rek ma defal ko ndek man ko ndax defal ndek mu ne ma baxna na mbaxalu yàpp bi jot agn bi jot man ko papa do agn mu ne ma sourna sama bir bi mo dé bi di metti papa lu ko musul daal bët bi di raf di metti ma toog ci boolu añ bis daan ne buri jóob buri jóob daal di ñam benn kudd daal di jog ma ne ko buri doo añ mu ne man daal démb de sama yaram bi dama tayal daal nday ge mooy sama njëkke ma daa di ñam man tamit petit jéy ne ma yéen du ngeen añ ma ne ko man ban daal sama sama biir bi daa dee ma dugg sama néeg changé daal di carax yi ma soloon sol ay claquettes jël sama pochette daal di fekk papa ci néeg bi ni ko baal ma dem maa ngi dem Sonatel bi te ñëw papa ni man damay dem entraînement léegi sax ma dem dugg néegu papa yëkkati rido bi papa wuyuwul ma ne ame ame ma papa day nelaw nelaw dara dem ci guddi moo tax muy nelaw ndeke man bi ma koy tàgg ndeke fekk làqu na ma dem si sonaatel bi sam Sonatel ba papa woona ma trois appels su ma décroché rek du wax mais su ma koy woowaat day communiqué ma ma ne Petit Dieye papa de xam naa dafa bëgg a dem entraînement soxla ma nañ daw gaaw ma Petit Dieye ak Cheikh ñu ànd waaxu si ma ñëw rek oto bi gaare benn oto gaare fii mu wàcce Ahmed ak Ibou Sène man leen Ibou Sène Ibou Sène daf ñu romb ak oto bi vif ma ne ko mais Ibou Sène lan la seen looy def nii yow da nga soof trop affaire di ko tooñ noonu xam nga ma ci kër gi ni leen lan la ñu ne ma ndig daan ne ma chauffeur bi dawal daan ne ma euh, papa moo feebar moom la ñu hopital hôpital ma gis ibu seen laaj carte d'identité jël darab mané mais c'est quoi ça ma ko may Ibou sen lan la wax ñu lan mo xew. xam nga mu ma nono dara papa mo rek son ndeke bi mi genn ci kër gi papa di papa papa di ko yobbu hôpital fekk na mu laqku bi ma hôpital nak ma gis papa gis ma rek ni ndey ge ñak na ma ci la xam ne bi genn na aduna quoi wa non dal la ko yegge wa nit ku bax la do xamé ki mu jur ak ku mu jurul ci kër gi munoo xàmme gis nga dëj bi ni mu mel ak ay nit boo fi ñëwoon tey ci suba nga waaru kenn xamul ku mu jur ak ku mu jurul barke Seydina Mohamed man nit ñi ñoo ma defal sax ba ma courage toog fii sax di wax papa munoo wax ni kii la jur ak kii la jurul ñëpp lay bokk di conseiller de leen julli bu leen waxtu raw góor leen ci seen àdduna loo fi gis looy dugg na nga ko gëm looy nekk na ko gëm moom loolu lañ doon ñaax. yal na ko yàlla yërëm rek te xaar ko aljana waaw waaw